Est-ce que j'en suis encore waaw affaire bi daf may jaaxal ndax lu tax mu di yaakaar naa ne bu ñu defee analyse pertinente ñi nga xam ne depuis 2012 à ak ñu ngi topp ci parti bi di kàngare lenn lu nekk ñu dig leen ko ñu bañ lenn lu nekk ñu wan leen ko ci xeetu teranga ñu bañ amuñu woon benn bis lu le vingt cinq février deux mille vingt deux ñu yaakaar ñu tas suñu yaakaar ci loo xam ne tegu tegu ci woon ne Karim Wade du bokk ñun ñu tax ngir seen jëmm xuloon ngir seen jëmm nga xam ne keroog assemblée nationale mënoon nañoo gaañu wala ñu bañ a génne waale bakkan yàlla mi suturaal jaam nag moonu suturaal ba nu génn ci alhamdulilahi rabbil alamin ak seeni ñaan ñu ne nag parti bi bu demul élection deux mille vingt quatre vingt cinq février deux mille vingt quatre su parti bi bokkul bu PDS bokkul Karim Wade bokkul mais ñun parti bi tas sax déjà am na ñoo xam ne bi affaire bi amee rek commencé nañ di campagne pour ay candidats jot nañ audio kon nga xam ne ñooñu ak ñu mel ne ñoom xalaatuñ fi woon a toog dañuy dem tey nag day daan day doon dëgg nag ndax dafa metti fukki at ak ñaar nga toog di xeex benn mbir ba mbir mi ñëw bañ ne jàpp nga ba nga ne téye nga ci sa loxo ñu la mbir mi nga téye ci sa loxo foqar ci nañ ko bokkatoo nga bëgg fee toogaay yeneen fukki at nag ndax président bu fi falu feeg fukki at doo joxe sa pouvoir da nga ciy taxaw waa nga muy ñaar fukki at ak ñaar yoo xam ne yii yaa ngi ci coono yaa ngi ci fitna yaa ngi ci ñàkk yaa ngi ci coono yaa ngi ci bëgg Ablaye Wade nga nga toog ko nag ba ba ñuy defate élection xama deux mille lan wax dëgg yàlla loolu tamit dafay metti deux mille deux mille trente nangam day metti ñu ne li ñu war a def mooy nañ def enquête commission d' enquête parlementaire ndax fekk na booba am na yu fi génn yu nu yëg te ojo yi mu ci am lu muy leeral bi ci gën a fës rek Karim Wade ministre de l' intérieur bu Paris ak premier ministre bu Paris ñoo def décret ne Karim Wade dootul sénégalais dootu dootul dootul français sénégalais la ñu ne il faut que mu am 6 mois waaw bu ñu defoon moom te bi ñu war a def exam euh, élection yi moom ci 4 mois la tool ndax octobre la ko déposé octobre novembre décembre janvier 4 mois te nee nañ obligatoirement 6 mois la war a doon waaw kon ñun bu ñu pertee bañ a bokk kon ñun fan la ñu jëm jëm. il faut que parti bi ñu def ci ay pexe pour ñu reporter élection yi su reporter élection yi ba pare. kii wax ak yéen mbokk yi mooy Woré Sarr député PDS keroog moo nekkoon ci assemblée ba ñoom ñoo ànd ak waa Benno Bokk Yaakaar jalgati suñuy constitution ngir benn nit di Karim Meïssa Wade moom lay expliquer ci seen groupe bu leaderu PDS nii lay yi lay joxe ndax dañu nekk seen biir du xuloo dégg nga nee na génn bi ñu génnee Karim Wade ñu war a toogaat fukki at ñaar wala ñaar fukki at ak ñaar. wala ñaar fukki at yoo xam ne duñ jotaat ci nguur gi ñoom dañuy perte moo tax ñu ut ay pexe dañ doon ut ay pexe pexe yi mooy jalgati constitution bi ànd ceeg Macky Sall mi nga xam ne bëggul dem élection ñoom ñaar ñu kumpaloo askan wi ba nit ñi di ci dee waa Ziguinchor di dee waa Ndar di dee waa Touba di dee ñëpp di dee ngir bëgg-bëggu benn nit Karim Wade ak ki nga xam ne mooy Macky ñoom ñaar kot ñoo ko doon def kii di Woré Sarr député le PDS nekkoon ca biir assemblée ba ci ñi voté loi bi ci la bokk ngir def bànneexu benn nit bu bëgg a bokk ci ay élection muy Karim Wade te loolu arrangé Macky Sall ngir ñu mën a indi fitne bii ci réew mi ba tax Mountakha Mbacké di jooy Mountakha Mbacké li muy jooy fitne bi muy ba bi ko yóbbee muy jooy Touba ki ko ko yóbbee mooy ñaar ña mu dajale woon ca Masaalikul Jinaan di leen jubóole muy Ablaye Wade ak Macky Sall ñoo ko jooyloo tey la mu wax ak ñoom nag ba tax muy jooy moom Mountakha Mbacké moo ko xam tey ku fi dee moom Mountakha Mbacké dina ko layoo ak yàlla ëllëg ndax moom moo jàppoon ci loxo Macky la ki am euh, Ablaye Wade di leen dugal Masaliku Dia ñu naan dañuy signé ay protocole protocole yooyu moo rey doomu jàmbur tey déglu leen Woré Sarr député PDS li mu wax platé dil bi wax lu tax ñu voté loi lu tax ñu yàq élection yi ngir Karim Wade bëgg a bokk kott kott moo tax ñu def ko ñu déglu ko. Karim Wade balaa boobu mars au plus tard dina retrouver dana nekk dans la légalité. ndax dañu ko dañoo dindi nationalité Karim ci France octobre la ko dugaloon ca consulat Dubaï le 16. bii passé janvier la France jël décret na Karim nekkatul français le 17 ñu publier ko journal officiel léegi à partir du 17 janvier Karim nekkatul français mais Karim dafa dugal dossier am le 23 décembre la dugal dossier am conseil ne moom sénégalais képp la ba mu koy dugal day fen booba du sénégalais kese booba mi ngi français ba léegi un mois après la ko France doo ko wax ne ko nekkatoo français kon ba muy dugal di waat na sénégalais da pour que conseil constitutionnel mën ko jël il faut nga toog 6 mois te bi mu koy ñàkk Karim muy le 16 janvier ak bi conseil constitutionnel di décider matul sax weer kon Karim pour mu mën a bokkaat ci élection il faut que mu toogaat au minimum 6 mois Sénégal pour mu mën a nekk sénégalais kees moom la war a saar di wax. nee na kon Karim mënugul a bokk ci ay élection moo tax élection yi nañ ko yàq ba du am ngir fii ak mois de mars avril mai fekk 6 mois Karim yi mat Karim mën a ñëwaat nekk candidat kon liñ du ay corruption du ay njuuj njaaj dañ doon ut ay pexe ngir bëgg Karim Wade bokk ci élection yi parce que ñoom jàpp nañ ne Karim mënta ñàkk bañ a bokk ci ay élection lii mooy indi coow li Sénégal am yëpp ba ku nekk di dee li takk ci réew mi yëpp Macky Sall la Ablaye wadd ak doomam Karim ak mun ta Mountakha Mbacké mi nekk seen ginnaaw ba tey muy bëtt ay bëtam du jooy ñu teewlu leen. kenn dootu ne six mois yi matul te bu boobaa nag gannaaw am na caution am na parrainage am na am na nationalité sénégalaise am ku ko mën a tee bokk ci élection yi li ci des nag ñu teg ko ci loxo yàlla nag ñaan yàlla may nu ci ndam APR gi ñuy wax nun buñ doon jaay suñu bopp duñ si fii ñi bëggoon a jaay seen bopp ñi bëggoon a dem dem nañ bu yàgg te dara empêché wuñu woon yéen ñooñu ngeen dem waxuma ak ñun kenn ku nekk bu la neexoon dem sa ngor moo la fi ba léegi ñoom am nañ seen problème ndax ni ma jàngi seen waxtaan ak ni ma dégg seen wax te wax nañ ko ñëpp di ko dégg wax nañ ko commission wax nañ ko plénière nee na ñoom que Macky Sall moo leen booleeg Amadou Ba Amadou Ba mooy seen candidat te Amadou Ba bu demee élection ku mënti jàkkaar lool bëgg bëre bañ bëri dañ koy dañ day Amadou Ba day gagné waaye nag comme que taqal nañ ko ndax ñun ñoo taqal Amadou Ba mu ngi suñu rapport yi ne lu fi njiit njaagate mooy njaag awal ñoom ak waa APR la de. kii wax waa PDS la nee ñoom ñoo taqal Amadou Ba candidat wu Macky Sall ne dafa taq dafa corrompre juge ca biir commission ba ca assemblée ba ñoom ci seen biir ñooy waxante PDS ak Benno Bokk Yaakaar ba loola amee ñoom ñu ne comme yéen da a tuumaal suñu candidat Amadou Ba léegi bi taxaw mu leer ndax suñu candidat la ndax wóor nañu demee élection day gagné gis nga seen tappale yi ñu tappale gis nga seen fen yi lii lépp ci seen i intérêt bopp intérêt Macky Sall ak intérêt Karim Wade dong Ablaye Wade di màggat mu am 100 ans bientôt biir di njuuj njaaj di xaar dee tàbbi safara Muntaxa nekk ca kaw nag moom di di xam ba muy tàkk ñoo bon ñu déglu. awale ko ci Thierno Alassane Sall ñu ne comme que taxal dañ ko ci corruption tudd ay tur Cheikh Ndiaye ak Cheikh Tidiane Koulibaly léegi ñoom seen leader dañ koy fóot ba mu set wecc wecc wecc mu set mbaa mu taq ndaxte amuñ droit di ko accuser te teguñu ko ci preuve yu leer. ndax bëgguñu ëllëg seen waajooju bis bu gañee ñu naan président corrupteur wala président bu tappale wala nangam nangam waa ñun lii moonu boole ñoom ñoom quatre-vingt-trois la ñun vingt-cinq lañu sur vingt-cinq mënul a tax ñu dàq sa élection sur vingt-cinq mënta tax Karim Wade euh, doon candidat ñu su objectif principal mooy nañ fexe rek élection yi ñu dàq ko bu ñu ko dàqee Karim Wade bokk bu ñu ko. dégg ngeen Woré Sarr député PDS may wax de. ñoom député PDS yi 25 lañ 25 ñoom Macky Sall di 83 Macky Sall mënut a soppi ab loi 83 député mi mënut a soppi benn loi constitutionnelle 25 PDS yi mënuñu ko waaye bu ñu àndee dañuy am lim bi soxla muy 99. moom Woré Sarr wax nee na ñun suñu objectif suñu bëgg-bëgg. ci ànd gi ñu ànd ak waa APR pour voter loi bi suñu bëgg-bëgg lenn képp la mooy ñu dàq élection yi ngir Karim Wade bëgg bokk loolu képp moo ñu ñor ñun ndax Karim mun bokk liñ ci sonnee préparé ko ba xam ne du bokk ci ay élection ku fi falu da nga faluwaat loolu ñun mënuñu koo muñ pexe bu ne daañu ko daañu sos daañu complot daañu ànd a bokk lii suñu sabab ñun moo tax ñu ànd ak waa Benno Bokk Yaakaar ngir ñu dàq élection yi parce que ñoom it loolu la ñu bëgg ñu ànd ceeg ñoom ngir njëriñu Karim Wade ku mas gis lu mel ni mun Muntaxa Mbàkke toog fee di bëtt ay bëtam di jooy te moo leen moo leen dagale woon ca Masaalikul Jinaan ku mas a gis lu mel ni réew mi ana yàlla. ko def parti bi tas sunu coono ñun te nee na bu Karim bokkul parti bi tas seen coono day réer liñ ci sonn yëpp di xaar Karim ak seen leb leb gi ñu leb ak kër yi ñu tabax ak euh, mot euh, maanaam bor yi ñu fay boutique boutique yi beeg ceeb bi ñu leb ak lépp daal ñu ngi ko aj ci Karim faju falu ba ñu mën a jël ci alalu nguur gi fay bor yi. boru kër yi boru gasneer yi boru uh, salle à manger yi boru oto yi boru yëpp nga xam ne jël nañ ko ndax Karim mi ngi ñëw te day falu googu bor bor yooyu pour ñu mën koo fay il faut Karim ci seppee Karim du falu te bu faluwul bor yi kaso mën na cee fekk kon nañu yàq nañu xëpp ci kere ji kaane yàq ànd ñu ànd ak Macky Sall ñu taal réew mi pousse élection yi jalgati constitution bi ngir Karim Wade mën a bokk kese Woré Sarr pour ñu voté ko li tàkk ci réew mi ñëpp ñii la déglu leen ku mas gis lu mel ni surtout yéen ñëpp muñ ngeen dee ngeen sonn ngeen damm ngeen tàyyi ngeen ab Ablaye Wade jaral na leen doomam jaral na leen. déggal waaw candidat la bu dem. parti politique boo xam ne militant ya fa nekk làppato yi sonn nañu damm nañu tàyyi nañu ci xaar kari muñ jul gis Woré Sarr nee na waaye jar na ko Ablaye Wade ak doomu ab lay Wade le prince et le prince héritier buur yi Ablaye Wade buur la doom ji di buur. yeneen ñoom ñoom ñuy ay doomi daal ñi doomi wengal ngem bi doomi làppato yi ñu nekk biir PDS toog di xaar Ablaye Wade ak doomi Ablaye Wade ñu koy doonante ak nguur nee na na seen torox tànge gi jar na fen ci assemblée bi jar na ñu voté ab loi bu jaarul yoon jar na ñu indi fit na ci réew mi jar na ñëpp dee jar na waa Casamance di dee waa Ndakaaru di dee waa tuubaa di dee waa Université saint na ñëpp dee ndax Ablaye Wade la baron et le fils du baron buur ab Ablaye wadd bi ak Macky sàll ñoom seen i bëgg-bëgg jar na Sénégal gépp dee Woré Sarr ko wax ñu ñëw doomi raam ñoo bon. demul élection demu ko 2012 demu ko 2024 kon fan lañ jëm nu bëgg fee toogaat yeneen 10 ans wala yeneen 12 ans di xaar lii mooy sunu. tànk nii la dafa am nag xaalis leen a jox xaalis Macky da leen a jox xaalis ñi ne trois cent millions ñi ne cinq cent millions la Macky teg ci kaw taabal gi député PDS yi pour ñu ànd ci voté ko tuuma googu nag mooy tas PDS fi mu coow laa nga ne kur da ngay saagante ndey moo tax waree saal ci député bi génn dem ci seen groupe ba responsable PDS di fa wax lii pour defal leen. indi ay lay teg ngir kenn bañ a dem ngir affaire bi bañ a génn bañ a senn waaye affaire baa ngi ci mbedd mi déglu leen corruption bi seen biir bi leen xaalis bi leen Macky a taal Sénégal jox nañ ne trois cent millions c'est pas vrai nga bu fekkoon ne sax am na ñoo xam ne ñeneen ca ña nekk ca lànga la ñuy wax man intéressé wu ma mais ñi bokkal nag parti ci boppam comprendre uñ ne ñun dañoo bëggoon suñu candidat bokk moo tax ñu fexe bañ xeex bañ reporter élection yi dégg de dañ leen a tuumaal na Macky dañ leen a jox 300 millions ñi ne 500 millions mu ne loolu dëgg kenn joxuñu xaalis ñun dañoo xeex ànd ak ñoom ngir ñu tuxal election yi ndax suñu bëgg-bëgg ñun waa PDS li tax ñu sonn ci voté loi bi mooy ñu tuxal election yi ba Karim mën a bokk loolu képp moo ñu ñor waaye xaalis bi ngeen ñu tuumaal na Macky moo ñu ko jox Macky joxuñu xaalis ña ngay layante ña ngay tamante dëmm bu dee xaalis bi du dëgg bu dee pousse élection yi pour Karim Wade a nit ñi di ci dee fitna bi Sénégal yëpp ngànk Sénégal tey rajo yeeg télé yi foo jàpp am Sénégal indi Sénégal Karim Wade ndax jar na li mennum doomu ab Ablaye Wade jar na ñuy ngunni ngunnee Sénégal adduna bi yëpp suñu der yàqu fépp nit ñi di dee di xeex fitna bi gaz lacrymogène yi kenn demul kenn dëkk alal ji yàqu ci réew mi oto yi tàkk yëpp mennum Karim Wade ma nga ne nongu ca Dubaay ma nga toog ca Qatar dara weñ du ko laal gazewul masul dóor ñu koy liif tëjuñu ko ci kaso ma ngay noo sàcc suñu ay milliards baayam kenn gisu ko mook Macky Sall ñu toog di complot Mountakha Mbacké nekk ca seen biir di tegi dil ba dil bi xëpp ci kawam Touba xëy tàkk ñëpp di manifester Touba lu mësta am Touba ci xilaaf ak Serigne Touba ci ta Mountakha Mbacké la amee ndax lan dil yi mu ànd ak ñoom di dil guddi ak bëccëg ba lépp xëpp ci kawam mu bëtt ay bëtam di jooy gisagul dara ñu déglu pour ay nationalité mën a mën a legal ak pour mën a bokk élection yi di ñu dëkk nag yeneen dëkk day metti nag wax dëgg yàlla day metti dañuy woo di nu saaga dañuy woon naan di ngeen de seeni doom danañ de di ngeen am ràmm di ngeen cardiaque da ngeen lu ne leen ñuy wax et c'est pas ça c'est pas ça ñun li ñu xeex ak li ñu daj ak li ñu dégg ñun ak li ñu doon xaar ku ko xamoon danga ñu naan jërë ngeen ak jëf jaaraam ak jaraw lakk foog naa objectif ñun bi ñu doon viser atteindre nañ ko mars au plus tard Karim Wade dana dana dana am légalité euh, renonciation à sa nationalité française loolu lañ doon xeex xanaa nag bu élection yi jotee ba. dégg nga de nee lu ñu leen mën a yàq ñoom risques yi ñu jël jël nañ ko te bëgg-bëgg ba mën a dékku risques yëpp seen bakkan lépp moo na ci xaj waaye dañoo gëmm def ko ngir Karim Wade mën a bokk. fii ak mois de mars dina fekk 6 mois yi mat ndax moom 6 mois yi ni ko calculer ci date bi Karim Wade dugalee renoncé nationalité muy mois d' octobre 2023 au consulat de France bi nekk Qatar à Doha. donc moom dafa calculer octobre novembre décembre janvier février mars le 6 pour que Karim Wade mën a nekk candidat mais 6 mois yi mënul nekk date bi nga ko dugal 6 mois yi day nekk date bi nga xam ne ci la décret bi commencé génn xëy na moom ci loolu lay calculer donte jur na ci waaye ñoom seen calcul mooy fii ak mois de mars day fekk Karim Wade mën a nekk candidat léegi ndax léegi Karim Wade kon léegi sénégalais képp la waaye lii muy wax ni li muy tekki mooy kon conseil constitutionnel li def dëgg la li muy wax li muy bu fekkante ne ñoom jàpp nañ ne Karim Wade mois de mars lay soog a mën da ngay toog 6 mois pour mën a nekk sénégalais effectivement kon ñoom li ñu def ñoo ko tey kon conseil constitutionnel li mu def dëgg la Karim a nekk candidat parce que tubaab la bu fekkee mois de mars lay nekk sénégalais am cote di mat donte France bàyyi na ko waaye il faut mu toogaat ab diir diir boobu mois de mars lay mat ba dégg war a saa député di ko wax nee na suñu bëgg-bëgg yëpp mooy dàq élection yi ba jamono bi Karim di mën a nekk candidat Sénégal dëgg dëgg dëgg dëgg nga xam ne Sénégal dong lay nekk ci yoon mois de mars lay nekk soo da ciy bokk lii mooy suñu bëgg-bëgg ku mës a gis lii lii la lii la Woré Sarr wax waa PDS yëpp lii mooy seen bëgg-bëgg seen 25 députés yi voté loi bi taal réew mi tey ji yëpp Karim moo tax ñu def ko bu réew mi tàkkee tey bëgg-bëggu Karim Wade benn prince héritier doomu Abdoulaye Wade di buur nekk ca dowaa di dund di lekk lu ko neex di def lu ko neex Sénégal di tàkk yoonam nekku ci bañ ko xañee élection yi ñëpp dégg nañ ko réew maa ngi tàkk de gisagu leen Karim Wade def benn communiqué waxagul dara bu ñëpp doon dee yoo dem nekku ci kooku nee na moo bëgg a jiite Sénégal bu réew mi tàkk xale yi di ñaxtu ci seen i droit Karim du ci wax bu ñu xañee Karim Wade benn droit muy bokk ci élection te xañuñu ko ko dañ ko teg ci yoon parce que ñaari nationalité am ñu ne ko mënoo cee bokk ñu ne ñu ne na Sénégal tàkk ndax bëgg-bëggu Karim Wade pour ñoom moo gën bëgg-bëggu Sénégal yëpp Viviane Wade ba mu ŋaañee ay tànkam di wësin Karim Wade la mu daj ñun suñu yaay dajuñu ko Viviane doomi Viviane Wade Vert Viviane Wade Vert doomam jooju doo doomata doomataam yooyu doomam moo gën a seer seen doom yi ndayu vi Karim moo gën seen nday yi Viviane tubaab boobu moo gën a nekk noble yéen ñi may déglu yéen ñi nga xam ne seen nday yi ay làppato lañ loolu la Woré Sarr bëgg a wax fii loolu la waa PDS bëgg a wax fii ndayu moo gën suñu nday yi kon Karim moom bëgg-bëggam su amee suñu nday yeeg ñun ñëpp dañoo war a dee ndax bëgg-bëggu Karim ndax ndayu Karim boobu di Viviane Vert tubaab boobu moo gën suñu nday yi loolu la Woré Sarr bëgg a wax fii ñu ñooy doomee xaram dëgg dëgg dëgg ñoo bon waaye lépp ñoo ko teg suñu bopp lépp ñu ne lu ñu sëfoo ñu sëfoo ko amuñu fulla amuñu fayda heure bi war naa fekk Sénégal gépp di boy ñu jàpp Karim Wade noq ko ci kaso bi tëj ko ci ba àdduna suñu 139 milliards la kam la la Karim Wade yore Macky Sall ko ko wax 139 milliards anamu kenn waxu ci nit ñi dee ñu toog fi di lay. bu jot dat bi bu jotee waaw Karim Wade bu ñëwee andi nationalité am Karim Wade ñëw andi caution Karim Wade ñëw indi parrainage am waa dama ne xanaa kenn ko doo bokk nag ci élection yi bu boobaa nag ñu xam ne dañoo bëggul mu bokk ñu xam ne loolu lañ ñu ba ko nag parce que man ak ñëpp ak yéen ñëpp bi ñu njëkkee génn list bi ne Karim Wade bokk na ci vingt et un yi vingt et un candidats yi ñëpp a kontaan wóor na yàlla ñun dañoo xalaatoon ne rek. dégg nga ne pare nag ñëw ñu daal di ànd wër réew mi. déggal li lii la ñëpp defoon seen bopp. dégg bañ na bokk na waaw. billaahi wallaahi taalaa barke Kasu Rajab gi fi ma tëdd. waaw bi ñu waxee ne. luy Kasu Rajab ak barke Kasu luy Kasu Rajab. da ngay seet li waaw damaa wopp. dégg nga de. sama lal bii damaa wopp fi lañ ma fekk di ma jox garab ak di ma jox ay bitéel parce que sëñ Fallou parce que c'est pas ça c'est pas ça ñun li ñu xeex ak li ñu daj ak li ñu dégg ñun ak li ñu doon xaar ku ko xamoon danga ñu naan jërë ngeen ak jëf jaaraam ak jaraw lakk foog naa objectif ñun bi ñu doon viser atteindre nañ ko. mars au plus tard Karim Wade dana dana dana am légalité euh, renonciation à sa nationalité française. ñu tapote mu yaatu ñu tapote ko tapote tapote xanaa nag bu élection yi jotee ba issue bu jot date bi ñu tànn bu jotee waaw Karim Wade bu ñëwee andi nationalité am Karim Wade ñëw andi caution am Karim Wade ñëw andi parrainage am waaye dama ne xanaa kenn ko ne doo bokk nag ci élection yi bu boobaa nag ñu xam ne dañoo bëggul mu bokk ñu xam ne loolu lañ ñu ñu bako nag parce ak ñëpp ak yéen ñëpp bi ñu njëkkee génne list bi ne Karim Wade bokk na ci vingt et yi vingt et un candidats yi ñëpp a kontaan wóor na yàlla ñun dañoo xalaatoon ne rek na préparé nag ñëw ñu daal di ànd wër réew mi lii la ñëpp defoon ci seen bopp. billahi wallahi taalaay barke kasu rajab gi fi ma tëdd bi ñu waxee ne recalé nañ ko vingt la Karim Wade génn na ci damaa wopp sama lal bii damaa wopp fi lañ ma fekk di ma jox garab ak di ma jox ay biteel barke sëñ Fallou. parce que dama mbett sama yaakaar dafa tas te leer na ma ni sama yaakaar tase ci loolu ñeen ñëpp seen yaakaar tase na ci ñëpp la seen yaram ge yaram ge lii mooy objectif bi ñu doon visé yàlla may nañu gain de cause ma bëgg ñu delloo si suñu xel jaam ak pexem yàlla ak dogalam jaam ak pexem yàlla ak dogalam te fa yàlla yi defare doomu aadama dafa yegg ba di ko yàq ma tekki ni kuy gëm kuy wóolu bul gëm doomu aadama gëmal yàlla parce que affaire bi tournure bi mu am kenn xalaatul ne dina am man de billahi wallahi taala biñ ne Karim Wade bokkul gi recalé nañ ko ci 21 yi li ma yëg yàlla ma koy yomal xiyam te leer na ma ne li ma yëg yéen ñëpp yëg ngeen ko ndax ñun ñëpp su at demoo doon pare dem campagne a nationalité lañ ne amu ko waaw ki nga xam ne am na double nationalité bañ jàpp ko nag loolu rek waroon naa tax ñu dàq élection. da ngay ku bokk ci candidat yi pu pu purement sénégalaise ngam nationalité française ak bu Sénégal. bañ def la ngay candidat val val valider sa candidature xanaa loolu rek waroon naa xam ne tooñ passé wul loolu ki France ne bokkatul ak yow mi bokk ñu ne bërki di njaay tukki nga ci wax dëgg yàlla loolu rek waroon naa tax PDS gépp encouragé lu PDS gépp encouragé parce que yàlla nu suturaal. dégg li doon wax buñ ko jëfewul kon ñun ñu bisi de mbaa ñu bëri dinañ ci gaañu. dégg li te teew dañ koo risqué. dëggal ñun ñëpp dañ ñoo menacé. dëggal seen kër nañ ko wër. dëggal bu ñu leen seen kër. dëggal man assemblée nationale kenn jëkkuma fa. dëggal wala Saare wax député ñu baare ba dama ñaan ñëpp ngeen delloo si seen xel delloo si leen seen xel li ñu def parti bi lañ ko defal. partagé partagé li ñu def. maintenir parti bi ci position lañ ko defee. dégg nga de li ñu def. dégg nga li ñu def mooy lan mooy voter loi bu dàq élection yi dañ koo def pour defal ko parti PDS. dañ ko def defal ko Karim Wade da ngay xool yi lay te kii wax ni député PDS la Woré Sarr député PDS moom lañ bëggoon na putsch fan yi la yëkkati ko remplacé ko benn jigéen Saliou Dieng moo ko bëggoon def mooy bras droit Karim bi nekk ci biir PDS coow lu bari am seen biir Woré Sarr député moo taxawoon na Antoine jëm sa kanam ji di xuj di xujale ku ma ku la gis xam ne ku ku jubadi nga dëng nga xamoon naa la ba ngay nekk gone nekk nekk juge géejawaay waaye léegi dangaa dégg nga am moo yàq Woré Sarr moom mooy wax ni député PDS nee na li ñu def jalgati yoon jalgati constitution bi nit ñi di dee coono bi nekk ci réew mi yëpp nee nañu intere PDS moo tax ñu def ko ak njariñu Karim Wade na Sénégal gépp dee na ñëpp takk bëgg-bëgg Karim am bu dul loolu kenn du fi dund Woré Sarr a koy wax député déglu leen ko bañ suñu parti tasaaroo. bañ suñu parti tasaaroo moom lañ ko da li ñu def dañ koo def pour suñu candidat mën a bokk ci élection yii di ñëw dañ koo def pour suñu candidat balaa élection yii di ñëw. waaw six mois yi ne moom mara moom la war a am légalité renonciation à sa nationalité. waaw dana ci yegg au mois de mars. dégg kon Karim conseil constitutionnel ni mu ko génne jaadu parce que bu bu renoncé dafa war a toog 6 mois pour mën a bokkaat ci ay élection 6 mois yi matagul waree saa député PDS nee li tax ñu voté loi bi ngir mën koo dàq ba 6 mois yooyu mat bu ñuy taxawaalaat ak élection yi Karim Wade mën cee bokk moo tax ñu def lii benn li tax ñu def ko ñaareel bi mooy fexe ba sauver seen parti ndax su Karim bokkul parti bi day tas wax nañ dëgg Karim ren bu bokku woon ci élection yi carte day tas moo tax ñun Sénégalais ñu war a jóg élection am le te incha allahu rabbi élection day am ndax bu élection amul ci ñoom Karim bu nekkul candidat PDS day tas moo tax ñu def lépp teg ko ci kaw balance bi complot ak Macky Sall mi nga xam ne tamit bëggul élection pour que réew mi tàkk waaye élection du am ndax Macky candidat am Karim Wade dafa bëgg a bokk ñu seppi ko ñaar ñi ñëw complot ànd ak mag ànd euh, tubaab bu tay ba dem di jooy déglu leen Waré Sarr. li ñu def loolu rek lañ ko defee defewuñ ko leneen maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen balo àq maa ngi jéggalu mais affaire bi dafa metti dañuy menacer lu nekk leen ñuy wax man sama ajo yi lu ne lekk lañ may wax te loolu lu ñu may wax la ñuy wax képp ku bokk ci ñun waaw nit nag foog naa bu liggéeyee ba pare te nga seet xam ne kii li mu liggéey tegu na ci woon jaaraama rek ci war a topp. da ngay seet maa ngi jéggalu ñëpp di balu ñëpp ak di bal ñëpp ak may ñaan ñëpp nañ delloo seen xel. te ñaan yàlla yàlla mi nga xam ne mooy maye may nu nu fekkee te tal ba nu jàppale Karim Wade ba yàlla jox ko réew mi ci date bi ñu ko bëgg. kon da ngay seet li maanaam li ñu def yëpp ñoom ñu ànd ko vingt 25 députés PDS 83 députés Macky Sall ñoo ànd jalgati constitution bi taal Sénégal ba tey jii fitna bi ci lañ nekk nit ñaa ngi dee ñett nit deewagul nañ ci ci de Karim dafa war a bokk. fexe ba Karim Wade bokk bu Sénégal gépp doon tàkk jar na ko pour ñoom mbokk yi ñii ay yéen façon nit lañ yéen xeexkat yi damaa bëgg ngeen demal ma kër Woré Sarr sànni fa ay cocktail molotov rey ko mu dee aku njabootam ak képp ku bekk 25 député PDS yi 82 député Benno Bokk Yaakaar yi kenn warut a dund ndax seen dund gënta fort dund xale yi dee ci mbedd mi bu ngeen amee fulla di ngeen jóg tey ci guddi gi dem seeti kër député yi fexe ba ñoom ña fa nekk ñoom ñu doon voté loi yi ñoom ñëpp ñu fekki xale yi bar sàq kenn waru ci ñoom dund ci ñoom parce que ci mooy war a saa député ci ñu doon voté nee na assemblée kenn jiituwu fa ndax bañ ñu barricade gi moo fa njëkk ngir taal Sénégal dugg ci assemblée bi taal Sénégal moo tax keroog ba ma leen gisee ñu ànd dañuy inauguré Massalikul Jinaan Macky Sall ci Abdoulaye Wade ñuy Mountakha Mbacké nekk ca ginnaaw ak Bassirou Mbacké porte ñuy xàq taay karee mu ne ah mafia bi dajaloo nañu wallahi mafia bi dajaloo bi la mafia politique eh. eh. nga ba léegi ma a wax jàllu muus lay doon lu la tey Mountakha nga bëtt ay di jooy c'est la première fois ngis xalifu Cheikhul Khadim bu bëtt ay bëtam di jooy ne ko waay ku nekk yuux man lu ngeen yuux da ngeen doon këppatal ngeen di nas yàlla di nas la ngeen doon xëccoo lépp këpp nag seen kaw da ngeen dee bi safara yéen ñëpp Macky Sall ak uh, Karim Wade ak Abdoulaye Wade ak Bassirou Mbacké ak Mountakha ak yéen ñëpp safara ngeen jëm ndax baaxu leen bakkan yi wadd ci réew mi lépp ci seen responsabilité la nekk ndax complot guddi complot bëccëg yéen a bon yéen a bon yéen a bon yéen a bon a bon waaye dara daañu am ndam incha allah rabbi kii mooy Woré Sarr dinaa ko tegaat ci kanam ma bàyyi leen ngeen déglu nag ma dambal jaañ moom it ma dambal moom it li xew ma dambal moom it lu mu jox ma jambal jaañ même su fekkee Macky Sall dafa defaat un an jar na ko jar na ko pour ñu xam kan moo kan moo gagné réellement élection yi parce que ki war e gouverner dafa war a nekk koo xam dafa gagné réellement les élections là lépp jaar ci yoon lépp jaar ci yoon mais un tricheur ne doit pas nous gouverner des gens on doit pas l'accepter on doit pas l'accepter ah da ngay bi am fi mu nekk nii conséquence ku nekk di wax ku nekk am ci baat ku nekk am ci xalaat ku nekk di ci wax ku nekk am ci baat ku nekk am ci xalaat ñëpp xam ni Pastef képp ku bokk Pastef wala nga jege ko waruloo waruloo bokk ci élection yi. Madiambal Diagne wax de. dama dégg a éliminer d'office. yaatu tapoter partagé tapoter a bokk gars yi tapoté leen live bi ngeen partagé ko Sénégal gépp war a xam complot bi complot bi ñoom dañuy wax ci suuf wax ji moo commencé génn ñu ngi xuloo ci seen biir bàyyi leen ñëw toog di seetaan yéen tamit jàpp leen ci wala ñu arrêté live bi bokk mais ñëw rek toog kenn ku nekk sa bopp Sénégal li matu duñ dem dañuy égoïste kenn ku nekk sa bopp ngay xalaat na ci ku nekk jàpp ngeen jàpp ci ngir yàlla nit ñi xam li xew ñoom ñoo taal réew ñu naan xam nañ duñu gañ élection yi de xam nañ ko mais dañoo bëgg a bokk campagne électorale am am am am faire le tour du Sénégal raconter des bêtises et di a gàtt. ay biir dama commencé jukki mais il faut ngeen jàpp ci su ma koy wax pour ñëpp xam su may wax su ma neexoon yor ko na toog jàpp sama njàmbur mais dama koy partager ak yéen parce que loolu laa mas a defee yéen mais yéen tamit jàpp leen ci bu leen ñëw rek toog di déglu ku nekk di jariñu fexe leen ba ni ngeen ñëwee ñeneen ñëw parce que bu ngeen toogee ma toog ku nekk toog réew mi dañ koy du day yàqu jàppaleen ci def leen ay effort bàyyi leen lépp ngeen bàyyi benn nit di ko def man képp mënuma ñu faut que ñun ñëpp ñu jàppalante partagé leen ko live bi yéeg àgg fa ñëpp mën ci déglu ngir yàlla ak bi loolu waruma foon sax nekk di ko wax parce que damay perte temps am na loo xam ne kenn ku ne yaa war a xamal sa bopp jàppaleen ci ngir yàlla parce que xeex bi du xeexu benn nit xeexu mbooloo la jëf garaaw nga ni bii lu taal réew tous ces vingt candidats yi bëgg a dem demuñu pour gagner deux ou trois pour gagner ñi des ñëpp dañu am c'est une belle occasion pour ñoom pour ñu am pour ñu am des temps d'antenne maanaam taxaw di dara rek a wax c'est pour leur dernier c'est pas pour leur. su nga ma jàmbal mënuta nooyi sax mer naa mer a mer ba ci biir wax gi sax mi ngi fatt ndax Bassirou Diomaye Faye bi rëcc mooy seen fitna fi mu toll nii élection ñu reporté yëpp ñaari mbir moo tax ñu reporté ko Bassirou Diomaye Faye bi ci bokk ak Karim Wade mi ci bokkul moo tax ñu nañ ko jaxase ma ma jàmbal la ñuy wax bay xëxët déglu leen ko aujourd'hui xalaatuñu sax gañe seen xel nekku ci dem élection on va leur la bouche nag tous ces gens déggal li a bokk warul romb six personnes. déggal ma jàmbal may wax ku war a bokk ku wërta bokk. voilà. dégg nga nee na daañu tëj seen gémmiñ ñaw seen gémmiñ la ñuy def ñi ci waroon a bokk wërta war a war a woon a weesu juróom juróom benn nit ñoom duñ ci bokk kenn du ci bokk ma jàmbal jaañ lu ci yoonam ci ay élection wax lan mooy ma jàmbal lan mooy liggéeyam ci réew mi Madiambal moom mooy conseil constitutionnel Madiambal moom lan moo yoonam ci justice Madiambal lan moo yoonam ci ku war a bokk ku wër ta bokk mais Sénégal gii mais lii ba kañ Madiambal bii moo doon wax ak porte parole Mountakha Mbacké Bassirou Mbacké to ci télé bi naan maag Bassirou Mbacké waxante nañu lii 2019 bi Ousmane Sonko génnee Bassirou Mbacké woo ko bas porte parole doomu doomu sëñ Bassirou Mbacké Abdou Khadre sëñ Abdou Khadre Mbacké xalif juma euh, imaamu Touba yàlla na ko yàlla yërëm doomam ji mu jur di Bassirou Mbacké porte parole mooy dil ak Madiambal Diagne Madiambal na ko Ousmane Sonko mi doole ji mu am bis ba jëlee réew mi Touba dootu leen dootu leen dund ndax diine ji ngeen yore Ousmane Sonko bugg ko Madiambal moom moo doon sende Madiambal bi wax ak Bassirou Mbacké di kàddu yor kàddu Mountakha Mbacké Madiambal Diagne mooy wax nii da ngay xool bi complot lii mooy mafia politico maraboutico affairiste bi may wax la mafia les les borom média yi borom alal ñi naan ay kilifa diine lañu politiciens yi mafia bii ñoo bëgg a lekk Ousmane Sonko te Ousmane dafa wex boo ko wan ne da koy yàbbiwaat lii mooy problème bi xoolal ma jàmbal mi ngi xëxët ku mas a mel nii ñu ko yaatu. yéen si dama la rëkkale tey leen ñu dem ki gën a liggéey gagné ñu jox ko suñu mu gouverné ñu tout Idrissa Seck ma loolu laa gis. maa koy assuré a ci gis ay conséquences. dégg nga Idrissa lay wax de donc Idriss Seck bi mu lii liiree ba yër ba xool ba xam ba xàmme xam nag nekk nit ko am expérience. déggal xam na ni moom du sonn ci lii parce que du dem. déggal moo ko njëkk a comprendre sax Macky Sall peut-être. Uh-huh. dama ne da ngay xool yow ñi nekk ci Sénégal def politique ñëpp a wu. tout le monde s'agite sauf lui ça veut dire que bokkul ak ñoom ça dire que ni

Madiambal lay wax de Madiambal Diagne nee na ay article intéressé wu ko li ko intéressé mooy conseil constitutionnel dañu ils sont corrompus Badio Camara est corrompu euh, Mouhamadou Diawara est corrompu Cheikh Tidiane Koulibaly est corrompu Cheikh Ndiaye est corrompu les sept juges du conseil constitutionnel Madiambal Diagne nee na vous êtes des corrompus Madiambal nee na moom looloo ko ñor ku mës a gis lu mel nii. na te ndax loolu yëpp ko jamaay fay ko jàll c'est de la corruption. nee na jamaay ko ñu bëri ne euh, comment dirais-je. <laughs> waaye yéen Karim Wade li li ko éliminer c'est de la corruption mais loolu duñ ko lijjanti. ah bon. duñ lijjanti loolu dañuy dem ci élection yoo xam ne problème am na ko xool. ah. ah. adresse Madiambal Diagne adresse Madiambal Diagne ko on Il y a trop de tricheries dans ce, dans ce processus électoral-là. De beaucoup de tricheries. Il y a trop de tricheries de mensonges. gis nga parrainage bi suñ ko jaaxle woon di dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg uh, peut-être cinq ou six personnes auront auraient auraient la possibilité vraiment de de de de de passer de passer parce que ni ñu tëralee parrainage bi moo nekk moo nekk moo tëralin bi moo nekk tëralin boo xam ne nii. yaa may dégg su fekkee tricherie amu ci mënoo mënoo am plus de cinq six candidats mënul nekk. dégg li ce n'est pas possible. dégg li ce n'est pas possible. pourquoi c'est pas possible dañoo war a wax dañoo war a on doit conseil constitutionnel boobu daf moo ñu war a wax. moo ñu war a lijjantil euh, Anta Babacar Ngom nan la def ba am parrainage. yaa parce que ñi nga xam ne ñaan jox ay parrainage dafa bëri ñëpp a ko xam. ah bon ñëpp xam ne yow on a donné du parrainage. ndax waxoo ko avant. loolu ñëpp a ko xam. ba parrainage nit ki yow yaa war a jug lijjanti nit ki wóor la. dégg kale gi ñu kale Idriss Seck. Ah, seetli parce que ni ko kalewoon lañ ko ah kenn xeex ko. Ah. dafa am ay doublon mu dem lijjanti ko ñëw indiwaat ko ñu. moom mooy saa xam lépp de moom moo xam lépp. seen i parrainage c'est du bla c'est des blabla. da ngay xool lii ñu def parrainage citoyen nag waaw ah ñu def parrainage citoyen la moo tax on doit avoir raison garder. Mhm. xool li ñuy wax xool li def dama dégg bañ fa nekk di di di di tëli tëli ka rajax rajax. ñu tapoter ñu tapoter. ñu tapoter ñu tapoter tapoter tapoter tapoter partager partager. parce que si on lui donne le temps de réfléchir dama dégg dina gis bunt mais lii moom du élection. ah bon lii du élection. ah bon vraiment lii du élection. <laughs> nee na lii du élection. d' abord et puis ñu ni Karim Wade dañ ko éliminer parce que dafa am double nationalité. ba léegi ñu ne coppet taxaw ni man am naa double nationalité dañ maa validé. waaw mais loolu ce n' est pas juste. après. man xam Karim Wade ñëpp xam ne man du ma PDS. lan mooy juste waaw est-ce que génne gi ñu génne Ousmane Sonko ci élection yi lu juste la lu tax kaasoo ko da ngay xool ji doomi raam nee na loolu c'est pas juste ah kañ loolu c'est juste c'est juste soo am war ni mu jàllee noonu la Karim jàllee ci liste bi mais biñ jàllee premier liste dafa am ñu def recours ci Karim ñu càmbar ko téye ko soo am war yow Madiambal ba nga xamee ne dafa am double nationalité lu tax jëloo ci candidat yi kenn mu def ci recours yoon dafa am nu muy doxee conseil ko càmbar Karim dañoo def ci moom recours ci deuxième liste bi ñu wax naan Soham Wardini dafa am double nationalité comme Karim kon bu ñu seppee Karim dañoo war a seppi Soham Wardini déedéet Karim ak Soham Wardini ñoom ñaar ñëpp ñoo jàll ci liste bu njëkk bi 21 candidats yi ñoom ñaar ñëpp ñu ngi ci waaye dafa am période de contestation de réclamation recours ca recours ba nag kenn Thierno Alassane Sall ne Karim Wade mii mënut a bokk ndax ñaari nationalité la am indi ay këyit indi ay firnde conseil constitutionnel ànd ak moom gëm ko génne ko teg fee bu amoon beneen candidat bu def recours ci Soham Wardini ca booba jamono temps recours bi indi ay firnde yuy wane ne kii ñaari nationalité am dañuy génne Soham Wardini teg fee parce que Soham Wardini du problème Soham Wardini du du favori Soham Wardini c'est pas un problème Soham Wardini ñoom ñoo ko ci dugal pour prétexte pour mën koo layoo lii ñuy wax nii moo taxoon ñu dugal ko ci ngir bëgg am fu ñu jafandu ngir pousse élection yi ndax pare wuñu seen candidat mënut a gañe muy Amadou Ba moo tax ñuy xëtër xëtëri nii di wax di i yeeg xëy yi xëtër xëtër di wax ba mënatuñoo nooyi ñoom Madiambal ak doomeraam ñi déglu ko. toujours combattre le PDS j'ai toujours combattu tout euh, les pratiques du PDS mais nan may demee ci élection yoo xam ne nii dafa am ñaari candidat kenn ki dañ ko jàpp. dafa tiit dafa tiit kenn ki ñu moom double nationalité ñoom ñaar ñu jàppale ci double nationalité kenn ki dem kenn ki du ma dem élection yi élection la. li nga waroon a wax du loolu li nga waroon a wax ñoom mooy ñoom ñaar ñëpp dañoo am double nationalité. ba ñu jàppee Rose Wardini yóbbu ko kaso def ko garde à vue bàyyi ko mu nekk sous contrôle judiciaire li nga waroon a wax mooy Karim Wade dañ ko waroon a moom it woo def ko mandat d'arrêt international jëli ko dawaa indi ko àtte ko def ko ci kaso bi ñu def ko liberté provisoire loolu nga waroon a wax te waxoo loolu comme da nga ñaar ñoo yem te da fen bu ñu yemoon kon ni ñu def soo am Wardini mooy yóbbu ko dig daal di koy def mandat de dépôt may ko liberté provisoire te loolu lépp dara du ci yoon moo lay xamal ne film la ay tappale la lu tax defuñu ko Karim Wade su fekkee ñoom ñaar ñëpp dañoo am double nationalité pourquoi ñu bàyyi Karim Wade muy nongi-nongi ñuy ànd ak moom ak député lu tax Karim Wade defuñu ko mandat d'arrêt international ci double nationalité bi présenté en tant que faux lu tax lu tax Madiambal waxoo loolu doomeraam ji nga doon. loolu fan la a tegu a tegu ci loolu yooyu élection amul ak li tax ñu tas parteem ak fi mu jaar quel que soit alpha amul benn réew moo xam ne nii dinañ accepter Diomaye Faye yaa may comprendre bokk ci élection munul nekk et que déclaration sur l'honneur bi mu def bi Diomaye Faye def déclaration sur l'honneur bi Diomaye Faye def dafa tiit de fi fi mu toll nii tubay jaagi fees dell ak gaanuwaay tubay jaagi xasoo kun dafa tiit ko sax te loolu conseil xam na ko conseil constitutionnel xam na ni jaarul ci administration pénitentiaire et il est en détention amul lettre buy dugg ci bu dafa nekk détention amul lettre bu war a génn foofu yi këyit yi mu suñu joxe ko loolu la ñuy wax waa Karim Wade moom fu mu nekk moom Karim Wade moom anamu moom Karim Wade fu mu nekk Karim ci kaso la nekkoon fii no ñu génn ko yóbbu ko Doba Dowa mu nekk fa ci kaso moo tax mënatul a ñëw Sénégal waaw léegi Bassirou Diomaye Faye su ma nee déposé ay dossier ma jàmbal di ko kaas ne warut a parce que ci kaso la nekk Karim moom fu nekk Karim néew ci kaso moom. Karim dañoo tuxal kaso bi yóbbu ko Dóor waar ci kaso la nekk mënut a teg tànkam Sénégal Karim Wade ci kaso la nekk waaw bu Karim mën a joxe ay këyit moom nekk ci kaso ko moom Madiambal mi est kan moo ne ko Diomaye li mu signé ci bi ci biir kaso bi la ko signé gis nañ fi ay vidéo Ousmane Sonko yoo xam ne avant muy dugg ci biir kaso bi la ko def kon moo ko ne Madiambal ne ko Diomaye Faye préparé wul ay dossiers yëpp laata muy dugg ci kaso bi kan moo ko wax loolu lan mooy firndeel na lii Diomaye signé ñu dugal ko jox ko ba candidature am baax ci biir kaso bi la ko signé lan mooy preuve ay vidéo Ousmane Sonko génn nañ fi toppuñu ko parce que vidéo yi daf ko pré-enregistré préparé ko lan moo wóor ma jàmbal ne ko Diomaye Faye préparé wul dossier de candidature am ca jamono ba ñuy def jamono ba ñuy def vidéo Ousmane Sonko yi nga xam ne Diomaye ak Ousmane xëy na liggéey nañ ci waxtaan nañ ci préparé seen dossier xam na ñoom ci kaso bi la mujj moo tax ñu jiital seen lépp seen i signature yi seen lépp préparé seen lépp tëj ci coffre fort ba bu jamono bi ñëwee ñu génne benn bennal lan moo wóor ma na ko lii defuñu ko li jiitu ñu dugg ci kaso bi ba muy taxaw naan jamaay fu jaar ak fu bind ak pénitencier ma jàmbal tubay jàngi fees di dell ko ay puub fi mu toll ndax tiit waaye billaahi ci kaso bi ngay dee doo mucc ci moom wala bu bu jóge ci ñu tapote ñu la ñu tapote. mu yëg ah, nan la mën a loolu nekk une autre forfaiture boo xam ne nii dama bëgg ñeen ñi naan nañ dem élection ngeen indi ci ay réponses parce que il y a il a deux fois quatre-vingt-dix mesures. ah bon. il y a mille mille mille fois et mille mesures. day nga dee de na mille fois sa waay tiit na. lu ñuy peese bilay tey nga dee nattukaay lañ lay natt mais loolu dañuy retaan sax dañuy yëpp. dégg nga dañuy yëpp. Macky Sall balaa nga a dee ñu naan dafa bëgg def troisième mandat Macky Sall su fekkee ñun ñu sérieux lañ ñu. partagé tapoté war nañoo nangu ni ba mu nee du ma def troisième mandat ak léegi tegul tegul benn acte bi wane dafa def troisième wala mu wax ko. ah bon. wala mu wax ko ku ko xam ne ci génn ku ci am ko. bu ngeen amee potu ndox ngeen may ko mu naan giriñ yaa ngi fuur fi mu toll nii pëy dafa tiit. du ko def du ma ko def ngeen bëgg ni da koy def fu ngeen man man je je ne comprends pas. ah bon tu comprends pas. tu vas comprendre ngeen def trois Idriss Seck su amee ci confiance ni Macky Sall def troisième mandat ngeen war ko ci am. di nga comprendre léegi. ngeen war ko ci fan la mën a jaar ba def troisième mandat mënul nekk. mais ah. yi dem ci élection c' est bête. des élections démocratiques. buñ ñu <laughs> doo président. ah parce que yaa ma dégg. <laughs> waaw ñëpp nekkuñu sur la même ligne de départ. ay waay ndaw Samba ñëpp nekkuñu sur la même ligne de ay waay ndaw Samba c' est ça choses. ah bon. billahi di nga xam ne lépp dëgg la. Madiambal Diagne dégg ngeen ko de bii mooy bosu Madiambal côté Amadou Ba ak Macky beneen bi ma leen tegal sànq mooy war Woré Sarr côté PDS dil bi mafia baa ngi noonu ñoom ñaar ñëpp dañoo am intérêt ci élection bañ am parce que Madiambal xam na bu Macky demee ci élection da koy ñàkk donc bu mu dem PDS bu Karim Wade demul dee nañu parti bi day tas Karim dafa war a dem ñoom ñaar ñii nag ñoo teg seen i dil lay ay lay crise institutionnelle à l'Assemblée beeg fenn fenn seen i fenn bin def ay loi yu jaarul yoon tas réew mi Sénégal gépp jóg ñëpp maasoo ndoon lii du fi am ak càcc la coup d'état la nit ñi di xeex ñuy rey di dóor ay bal di rey ay gone lii mbokk yi ñii ñooy criminels yi ils seront jugés ils seront condamnés à perpétuité ñii dañ leen tëj seen ngir dund Madiambal ak Woré Sarr ak Abdoulaye Wade ak Macky Sall ak ñoom ñëpp Sidiki Kaba ak ñoom ñëpp daañu leen tëj seen ngir dund benn par benn ñoom ñëpp dinaa leen jox seen numéro yi nga xam ne ngeen jël ko enregistré ko ñoom ñëpp seen numéro yi ngeen tas jël leen seen téléphone yi seen big yi ngeen enregistré numéro yi ma leen waaj jox ñoom mafia bi ñoom ñëpp ngeen jël seen numéro yi xam li xew ñu leen di jox nañ leen suñu hackers yi pour ñu hacké seen numéro yi dugg seen téléphone yi ñoom ñëpp benn par benn incha allah rabbi kenn du ci mucc ci ñoom Pape Samba Diop bi nga xam ne mooy protocole bu Macky Sall Pape Samba Diop nga xam ne caga lay wër mu yor ci ay immeuble Dakar am cent cinquante franc mënu ko woon am en 2008 2009 2010 Pape Samba Diop léegi milliardaire la ca protocole Macky Sall ba ñoo rey Bruno Diatta ñoo dàq ñëpp téye protocole bi te xamul li protocole amul sax BFM Pape Samba Diop moo yor protocole Macky Sall cagay Macky Sall yëpp moo ko géré Pape Samba Diop boobu ci protocole Macky Sall bi la bokk numéro téléphone am 221 76 639 17 jël leen ko ngeen yónnul ko ay bagages jël leen téléphone bi ngeen defal ko ay bagages Pape Samba Diop bu protocole Macky Sall waaw Blaise Diagne la nekkoon amu fa sax BFM tey milliardaire la ay immeuble lépp ak tëddee càggal mooy liggéeyam Pape Samba Diop WhatsApp am 70 221 76 639 17 20 60 221 76 Pape Samba Diop 221 76 639 17 20 Pape Samba Diop bu bu Pape Samba Diop jàllee nga jël ci nga xam ne mooy Sidiki Kaba ministre de l' intérieur bii rayaate chef de police ministre de l' intérieur Sidiki Kaba jël leen téléphone am ngeen defal ko ay bagages Sidiki di Sidiki Kaba ministre de l' intérieur Pape Samba Diop Pape Samba Diop am na kuy dugal numéro ba numéro lay dugal non waxuma 17 20 de wala attends waaw moom la waaw 17 20 la mu ngoog effectivement kooku numéro whatsapp Pape Samba Diop bi yor protocole Macky Sall bi koy joxal bi koy arrangé caga yi di ko luyeel oto yi di ko luyeel dégg man suite yi mu fay dugal caga Macky Sall yi bu Macky tukki caga yi Pape Samba Diop bi moo koy géré moo yor protocole caga Macky Sall yeeg euh, yi yu bon yi Macky nëbbi mareem ko géré moom loolu mooy liggéeyam ci Macky Sall caga yëpp moo ko géré ay immeuble milliardaire la te yorul 10 francs Mali ba ñu kaw loo xam yooyu mu yore Pape Samba Pape Samba Diop bu weesoo ngeen jël Sidiki Kaba ministre de l'intérieur bi yore policier yi leen yónni ñuy tëjee ko rey ñoo rey waa Ziguinchor rey uni rey étudiant bi université bi ñoom ñi rey Sidiki Kaba ministre jël leen ko ngeen yónnee ko ay cocktail molotov ak i café Touba. numéro téléphone am 70 221 WhatsApp am 221 77 740 76 78 66 maa ngi koy répété 221 77. 740, 78, 66. Répétez une troisième fois. Sidiki Kaba, ministre de l'Intérieur. bi chefu policier yi di leen jox fetal ak naan rey leen dóor leen ay bal téléphone am mi ngi nii ngeen géolocaliser ko topp ko jàpp ko takk ko defal ko ay bagages. ministre de l'intérieur Sidiki Kaba 221 77 740 78 66 ministre de l'intérieur Sidiki Kaba. ngeen jël numéro bi nga xam ne mooy numéro Mamadou Talla Cuks ministre ministre Mamadou Talla Cuks kooku tamit moom moo may Marème Faye Sall Macky Sall ministre la mi ngi ci biir gouvernement bi Macky jël na ko mu nekk ci bi milliardaire la léegi sàcc mant la jolie dëkkoon léegi ma nga Sénégal Macky def ko ministre Cuks ku jege Macky Sall la ci mafia bi la bokk Mamadou Talla mook famille Talla boobu ñoom Malal Talla ñoom euh, kii directeur général RTS bi c'est la même famille ce sont les Tala les Halpulaar la nekk Mandela Jolof ki fu ne ñoo téye réew mi ñooy RTS ñooy c'est la famille la famille des Halpulaar la les Neddoco leen neex di ko bummi moom ci la bokk ci mafia ko may Macky ndax moo ko doon jàngal Jurbel euh, nekkoon élève am waaye Marième moom bopp bi musta neex tuksi boobu da ko doon doxaan ba yàgg mu jël ko jox ko Macky boobu Macky kenn bëggu ko mu kenn bëggul lañ ko tuddee téléphone am mooy 221 77 740 53 62 Mamadou Talla Tiox cent 221 77 740 53 62 mooy téléphone am loolu mooy ñi ci des amuñ solo am na ay am na ñeneen mais ñeneen ñi booy xool Benoît Sambou bon ba écoute Benoît Sambou il est de Ziguinchor moom tamit waroon na mën a réagir en tant que doomu Ziguinchor en tant que Joola mais déedéet mi ngi ne patt ñu rey ay waa Ziguinchor mu ne patt Benoît Sambou ministre d'État Benoît Sambou def na ko mu nekkoon délégué xaw ma ci ban am na benn euh, kii bu ko Macky jox Benoît Sambou waa Ziguinchor xam ngeen ko Thiès la dëkk la dëkk fa la juddoo sax waaye léegi comme dafa bëgg base mu dem Ziguinchor na Ziguinchor la Benoît Sambou mais du wax mi ngi ne patt jël leen Benoît Sambou aussi Benoît Sambou 41 30 Benoît Samb 77 859 41 30 ñii ñooy saay-saay yi nga xam ne ñoo nekk tey ci bopp nguur gi ah di caga caga lu ñu am nag lu ñu am lu ñu am yóbbu ko ci caga yi lu ñu am yóbbu ko ci caga yi lu ñu am yóbbu ko ci caga yi fi toll nii lii mooy coow li lii la ñëpp di wax fi mu toll nii lii la ñëpp di wax fi toll nii lii mooy li nga xam ne mooy problème bi am ci réew mi complot nañu voté seeni loi def li ñuy def ba noppi nag léegi loolu nag moo feeñ léegi coow lee am coow li léegi coow li coow li nag moo am fi mu toll nii léegi nag dil bi kalaate na ndax ñi ngi wax ndax boo defee ba noppi coow li bari il faut nga lay lay boobu ñuy lay nag léegi moo indi jafe-jafe yii nag léegi ma jàmbal jaañ déglu ngeen ko waaye li ci gën a garaaw li ci gën a garaaw mooy mooy mooy dégluwaat leen bu baax a baax député PDS Woré Sarr bi maanaam waxam ji lépp la cee feeñ man ojo bi du ci doyal li mu wax ni dafa feeñal dil bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp moo tax du ko doyal il ma tegaat ko ngeen déglu ko bu baax a baax enregistré ko tasaare ko tapote live bi ba ñëpp déglu ko war Woré Sarr waxam dafa feeñal dafa kalaate dil bi yëpp yëpp yëpp daanaka amatul lay wax ju garaaw la wax audio bi àdduna bi picc yi ñëpp ko war a déglu ñu déglu Woré Sarr député PDS ba nekkoon ci assemblée ba ñuy voté loi bi taal réew mi tey mu wax lan moo tax ñoom ñu def ko sabab bi ci am ak njuuj njaaj yeeg xaalis bi ci am ak lay yeeg Ablaye Wade ak Karim ak lépp la teg dégluwaat leen ko mbokk yi audio bi donc dafa doy ab live waruñu ko yokk dara ñëpp trapoté mu mu jóg. waaw affaire bi daf may jaaxal ndax lu tax mu di ma jaaxal yaakaar naa ne bu ñu defee analyse pertinente ñi nga xam ne depuis. 2012 à nos jours muy fukki at ak ñaar ci ren ñu ngi topp ci parti bi di kàngaare lenn lu nekk ñu digg leen ko ñu bañ lenn lu nekk ñu wan leen ko ci xeetu teraanga ñu bañ amuñu woon benn bis lu dul le 25 février 2020 2024 ñu yaakaar ñu tas suñu yaakaar ci loo xam ne teggul ci dëgg teggul ci yoon ne Karim Wade du bokk ñun ñu taxaw jaayanteeg yàlla ngir seen jëmm xuloon ngir seen jëmm nga xam ne keroog assemblée nationale mënoon nañoo gaañu wala ñu bañ a génne waale bakkan yàlla mii suturaal jaam nag moonu suturaal ba nu génn ci alhamdulilahi rabbil alamin ak seeni ñaan ñu ne nag parti bi bu demul élection deux deux mille vingt quatre vingt cinq février deux mille vingt quatre su parti bi bokkul bu PDS bokkul Karim Wade bokkul mais ñun parti bi tas na déjà am na ñoo xam ne bi affaire bi amee rek commencé nañ di campagne pour ay candidats jot nañ audio yi kon nga xam ne ñooñu ak ñu mel ne ñoom xalaatuñ fi woon a toog dañuy dem tey nag day daan day doon dëgg nag ndax dafa metti fukki at ak ñaar nga toog xeex benn mbir ba mbir mi ñëw bañ ne jàpp nga ba nga ne téye goo ci sa loxo ñu la mbir mi nga téye ci sa loxo foqar ci nañ ko bokkatoo nga bëgg fee toogaay yeneen fukki at nag ndax président bu fi falu fekk fukki at doo joxe sa pouvoir da nga ciy taxaw waa nga muy ñaar fukki at ak ñaar yoo xam ne yii yaa ngi ci coono yaa ngi ci fitna yaa ngi ci ñàkk yaa ngi ci coono yaa ngi ci bëgg Ablaye Wade nga nga toog ko nag ba ba ñuy defate élection xama deux mille lan wax dëgg yàlla loolu tamit dafay metti deux mille deux mille nangam day metti ñu ne li ñu war a def mooy nañ def enquête commission d' enquête parlementaire ndax fekk na booba am na yu fi génn yu ñu yëg te ojo yi mu ngi ci am lu muy leeral bi ci gën a fës rek Karim Wade ministre de l'intérieur bu Paris ak premier ministre bu Paris ñoo def décret ne Karim Wade dootul sénégalais dootul dootul dootul français sénégalais la ñu ne il faut que mu am 6 mois waaw bu ñu defoon moom te bi ñu war a def exam euh, élection yi moom ci 4 mois la toll ndax octobre la ko dépose octobre novembre décembre janvier 4 mois te nee nañ obligatoirement 6 mois la war a doon waaw kon ñun bu ñu pertee bañ a bokk kon ñun fan la ñu jëm fan il faut que parti bi ñu def ci ay pexe pour ñu reporter élection yi suñu reporter élection yi ba pare. taxaw leen foofu nee na waa ñun waa PDS Karim Wade bokkul ci élection yi ba ñu ñàkk élection yi fan la ñu jëm ñaar fukki at ñaar yu nekk ci mbedd mi demuñu ci pouvoir bu ñu ñàkk élection yi fan la ñu jëm loolu mooy laaj bi mu laaj bu ñu bokkul fan la ñu jëm waaye lam ca teg mooy il faut que ñu def ci ay pexe def ci ay pexe ba mën a bokk kon seen ñàkk bañ a bokk ci élection yi. la koy saafara mooy ut ay pexe pexe yi nag mooy li ñu def loi bi ñu voté nii pour ñoom loolu mooy pexe bi lënkaloo gi ñu lënkaloog Macky Sall ngir taal Sénégal mooy pexe boo xam ne mooy tax Karim Wade mën a bokkaat ku mas a dégg mel ni ci àdduna. Karim Wade balaa boobu mars au plus tard dina retrouver dana nekk dans la légalité dootu wax ne six mois yi matul te bu boobaa nag gannaaw am na caution am na parrainage yu député am na am na nationalité sénégalaise am ku ko mën a tee bokk ci élection yi. li ci des nag ñu teg ko ci loxo yàlla nag ñaan yàlla may nu ci ndam affaire gi ñuy wax nun buñ doon jaay suñu bopp duñ si fii ñi bëggoon a jaay seen bopp ñi bëggoon a dem dem nañ bu yàgg te dara empêché wuñu woon yéen ñu ngeen dem waxuma ak ñun kenn ku nekk bu la neexoon dem sa ngor moo la fi ba waaw léegi ñoom am nañ seen problème ndax ni ma jàngi seen waxtaan ak ni ma dégg seen wax te wax nañ ko ñëpp di ko dégg wax nañ ko commission wax nañ ko plénière nee na ñoom que Macky moo leen booleek Amadou Ba Amadou Ba mooy seen candidat te Ba bu demee élection ku mënti jàkkaar lool bëgg bañ bëre dañ koy dañ day Amadou Ba day gagné waaye nag comme que takkal nañ ko ndax ñun ñoo takkal Amadou Ba mu ngi suñu raab. dégg ngeen de. nee na ñun mooy ñan mooy waa PDS ñoom ñi def commission d'enquête parlementaire bi nee na ñoom waa PDS ñoo taqal candidat wu Macky Sall Macky Sall ànd ak ñi taqal candidat am ne leen naa leen jox suma ay député ngir ñu mën a matal lim bi ñu soxla ngir taxawal commission d'enquête parlementaire bi ngir lan ngir ngeen dal ci sama kaw candidat bi nga xam ne man maa ko tànn woo ay député ne leen ànd leen ak ñi nga xam ne ñoo taqal sama candidat Amadou Ba ngeen ànd ak ñoom dooleel leen pour que ñu mën a dal ci sama kaw candidat Amadou Ba lii moo am de ñu ne nag lii mooy crise institutionnelle entre assemblée ak conseil constitutionnel seeni problème mu bopp ñoom seeni problème politique problème mu parti politique bu Macky sàll coalition bu Macky Sall benn boo ko yaakaar ak parti politique bu PDS coalition wallu seeni problème yi ñu am ci seen biir kii candidat am seppi nañ ko kee candidat am mënut a gañe kii mun a gañe kii seppi nañ ko seen ñaari jafe yooyu la ñu àndee ñoom ñaar tënk Sénégal bëgg taal Sénégal di rey doomi Sénégal yi seen bëgg-bëgg bopp kese kese kese kese kese mënut a xàmbaaka toog fee di bëtt ay bëtam di jooy ku mas a gis lu mel nii. rapport yi ne fi njiit njaagate mooy njaag awale ko Thierno Alassane Sall ñu ne comme que taxal dañ ko ci corruption tudd ay tur Cheikh Ndiaye ak Cheikh Tidiane Koulibaly léegi ñoom seen leader dañ koy fóot ba mu set wecc wecc wecc mu set mbaa mu taq ndaxte. waaw léegi ñoom seen leader muy amadu Ba ñu tuumaal ko mooy premier ministre ñoo dañ koy fóot ba mu set xanaa mbubb boo koy fóot dañ koy summi man de mosuma gis mbubb mu ñuy fóot ci kaw yaram am de mbubb mu tilim. bu ñu koy fóot est-ce que ci kaw col gi lañ koy fóote wala dañ koy summi suuf euh, sóob ko tontu leen ma mbokk yi mbubb mu tilim nga sol sa mbubb ba mu tilim nga ne koy fóot ndax ci sa kaw yaram ni nga ko solee nga koy fóot wala da nga koy summi sóob ko ci paan wala yaa xam loo koy fóotee sóob ko ci pour fóot tontu leen waa naka ngay bëgg a fóotee sa mbubb mu tilim muy Amadou Ba nga dañ koo tuumaal dafa tilim ñu war koo fóot ba noppi futti woo ko futti gi nga ko waroon a futti baxa bi boo ko bëggee fóot da koy futti ku sol sa baxa ba mu tilim boo koy fóot danga koy fus da koy summi nag ci dëgg-dëgg mbokk yi ko ci bagaan daa di fete ba mu set nga daa di def sa bëla ba mu di weñaat daa di weer baxa bi mën a kii nga soog ko paase waaye moom mbub miñ ne dafa tilim ñoo dañ koy fóot mbub mi ñoom summi wuñ ko te summi mbub mi mooy tekki ndomba tànk Amadou Ba mooy premier ministre bi mooy candidat bi bañ ko tuumaale da ngeen waroon tekki tànk tek tekki ndomba tànkam yëpp nangu candidat bi nangu poste premier ministre bi na ko demal demal layle sa bopp. waaye tey la Macky Sall taxaw na Amadou Ba tey laa gën a am confiance ci yow yow laa gën a wóolu yaay premier ministre bi ki ñu war a fóot moom moom futteekagul yëre bi mu yére bi ñu war a fóot kenn summeegu ko dañ na ko yére bi dand na tilim na waaye sol ko bu ko summi waa ñii ku ñu yab ñii kan kan la ñu yab ñii ñii PDS ki Ablaye Wade ki Macky Sall ki doomeraam yii ak ay Karim Wade ñii ñi ku ñu yab ñun sénégalais ñun kañ la ñuy am fulla pare ci ñi parti démocratique sénégalais ak APR dañ ko war a tas dañ ko war a dissoudre définitivement ce sont des partis criminels ay parti la yoo xam ne dañuy comploter contre l'intérêt de l'État avec des entreprises terroristes étrangers parti APR ak PDS dañ leen war a dissoudre définitivement ay parti la yoo xam ne waruñoo tooy exister Sénégal ñi dañoo comploter contre l'intérêt supérieur de l'État du Sénégal c'est ay intérêt personnel moo tax ñu compromettre les institutions la stabilité et la paix du pays c'est scandaleux c'est très grave c'est extrêmement grave te amuñ droit di ko accuser te teguñu ko ci preuve yu leer ndax bëgguñu ëllëg seen waajooju bis bu gañee ñu naan ko président corrupteur wala président bu tappale wala nangam nangam waa ñun lii moonu boole ñoom ñoom quatre-vingt-trois la ñun vingt-cinq lañu ñu tapote ñu tapote suñ vingt-cinq tax ñu dàq sa élection su sur 25 mënta tax ma Karim Wade euh, doon candidat ñun su objectif principal mooy ne. dégg nga de nee na ñoom 83 lañu ñun vingt cinq ñun suñu 25 député mënta tax Karim wàdd bokk ci élection yi suñu 25 député mënta dàq élection wax na dëgg. amuñu majorité te même bu ñu amee majorité mënuñu ko non seulement boo amee majorité mënoo ko def waaye boo amul majorité day gën a jafe ndax 25 dong lañ kon 25 député bu ñu mënee ñëw fexe ba xeex ba élection yi ñaan dañ koy tuxal ci ay tappale ci ay vote de loi yoo xam ne jaarul yoon ay loi yu bon dafa am ku leen ci jàppale ki leen ci jàppale mooy borom candidat bi ñu tuumaal ki tuumaal candidat am ba noppi nag di xeex candidat bi ci suuf di ko nëbb ci kaw daan ko mag yow a ànd ci kaw waaye ci suuf mi ngi koy xeex ndax mi ngi lënkaloog noonu candidat bi tuumal candidat bi ñoom ñaan ñuy lënkaloog pour am doole yu leen mën a may ñu taxawal commission d'enquête buy leeral tuuma yi waaye tamit di indi leneen loo xam ne loi buy dàq élection yi la Macky Sall ci boppam moo taal Sénégal li xew ci réew mi yëpp du kenn ku dul Macky Sall moo ànd ak Karim Wade ak di leen bàyyee Serigne Touba lu lu Macky Sall bëgg bu ko dama ca xabru ba ñaan li ma defal mënuma laa fay li ma defal na sëñ bu mag bi dong laa lay bàyyi lu Macky Sall am mën nañ ne ñaan gi ko Muntaxa di ñaanal di ko booleeg Sëriñ Tuubaa Macky Sall di ci ñaan loolee moom la ko yàlla fayee moo tax ñun ñëpp ñu nekk ci ay coono samay wax waxi Muntaxa Mbàkke la saa yu Macky ko ba ñaan bu fekkee lii la Sëriñ Tuubaa di may Macky Sall lii la na moo ko ko ñaan bu fekkee lii ma ñaani mbokk yi nañu xolaat suñu bopp xolaat suñu taxawaay te tiit nañu tiit ndax Macky lii lay def de muntaxaa ko wax du samay wax bu ma kenn yóbbu kër yaama di tax waxi muntaxaa mbàkke léegi nag lii mbokk yi yéen a ngi déglu yéen a ngi teewlu te dofu leen dégg ngeen bu baax a baax a baax a baax wax ji kenn ku ki nekk xam nga li xew ñu teewlu ko nañ fexe rek élection yi ñu dàq ko nañ fexe élection ñu dàq Karim Wade bokk bu ko deful parti bi tas suñu coono nañu léegi pexe yi mooy nañ fexe rek élection ñu dàq ko nañu ñu dàq ko nañu fexe ko ci ay pexe ndax bu élection yi amee te Karim bokk ci parti bi day tas kon parti démocratique sénégalais ak APR ñoom seen ay intérêt seen njariñ moo gën intérêt 18 million sénégalais parti démocratique sénégalais bu Abdoulaye Wade Karim parti bu Macky Sall APR seen ay intérêt pour mën a téye nguur gi moo ëpp solo dundu sénégalais yi moo ëpp solo constitution bi moo ëpp solo république bi moo ëpp solo institution yi moo ëpp solo conseil constitutionnel moo ëpp solo justice bi moo ëpp solo lépp na na réew mi yëpp tàkk na ñëpp dee na bal yi génn moo leen gënal ñoom élection di am yoo xam ne dañ koy ñàkk yi da koy ñàkk Karim Wade da koy ñàkk ndax Bassirou Diomaye fay moo ko war a gañe ndax Ousmane Sonko nga ngemb te loolu mooy dëgg parce que loolu la yàlla def ci askan wi yàlla pouvoir du doole ji nga am di doole ko tëj pouvoir mooy ki ànd ak askan wi ki askan wi def ci xolam kooku moo am doole kooku moo téye nguur gi ñoom nag loolu la ñuy bañ ñu ne dañ ciy def ay pexe seeni pexe mooy bëgg-bëggu Karim bëgg-bëggu Macky moo war a gën a nekk lu ñu war a taxaw ka bëgg-bëggu askan wi ak constitution bi charte réew mi li mu wax nañ ko jalgati ngir def lu neex Macky ak lu neex Karim Wade Macky Sall ak Karim lan lañ ñu ëppalee lan lañ ñu gën la ci réew mi seen baay yi dañoo man suñu baay yi mënul seen nday yi dañoo sukk wasin suñu nday yi sukkul wasin lan la Macky Sall ak Karim Wade am xam ko lu ñu xamul ñun ci réew mi lu tax ñii ñu yab ñu ñu taxaw na yàcc na yasa di leen setaan lu tax ñii ñu yab ñu mbokk yi lu tax ñaari nit ñi bëgg tàll taal réew mi ñu ne tekk taxaw di leen xool lu tax na ñun ñëpp day réer surtout yéen ñëpp muñ ngeen dee ngeen sonn ngeen damm ngeen tàyyi ngeen mais Ablaye Wade jaral na leen doomam jaral na leen. da ngay seet la bu demul élection demu ko 2012 demu ko 2024 kon fan lañ jëm. fu ngeen jëm yéen a xam. nu bëgg fee yeneen 10 ans. wala yeneen 12 ans suñu yoon nekku ci. di xaar suñu yoon nekku ci. lii mooy sunu tànk nii la demee un franc cinquante centime. kenn jël ko am na ñaar 500 millions leen Macky Sall jox. yéen waa PDS seen député yi Macky Sall 500 millions la leen séddale Farba Ngom ko séddale hôtel des députés 500 millions lañ jox député PDS yëpp ñu séddoo ko 25 députés yi. loolu ngeen xam ko du 300 de 500 la Macky Sall xobbet jox ko Farba Farba bi ñu waxoon moo yóbbu milliards yi conseil constitutionnel Farba boobu moo yóbbu 500 millions hôtel des députés séddale ko député waa PDS yi na ko Sénégal gépp xam du 300 millions dañoo encaissé xaalis ànd ak Macky Sall ki dil sénégalais yi dee te yéen ñi ci yéen ñi nekk biir PDS ànd ci lii képp ku ko cautionné da ko lay ak yàlla ëllëg ci sa biir bàmmeel yow ma xiyam da ko lay ak yàlla parce que lii ay fen la ay tappale la bakkan bu ci rot yéen ñi koy dëgëral am ngeen ci responsabilité tey ak ëllëg yéen waa PDS ak waa benn bokk yaakaar c'est pas vrai c'est des mensonges xam nga bu fekkoon ne sax am na ñoo xam ne ñeneen ca ña nekk ca lànga la ñuy wax man intéressé wu ma mais ñi bokkal nag parti ci boppam comprendre wuñ ne ñun dañoo bëggoon suñu candidat bokk moo tax ñu fexe bañ xeex bañ reporter élection yi pour ay nationalité a mën a ak pour mën a bokk élection yi di ñu dëkk nag yeneen dëkk day mel. dégg nga ma ngay dàq tuuma leen ger nee na jotuñu xaalis jotuñu xaalis xaalis li ñu doon voté mooy fexe ba ñu dàq élection yi suñu candidat mën a bokk. ci diire bi nga xam ne buñ nekkee buñ nee nekkatul français six mois après mën naa nekk candidat Sénégal diire boobu lañ bëgg mu mat moo tax ñu fexe ba ñu dàq élection yi waaye du xaalis bu ñu jox bu dee xaalis jaaduwul bu fekkante ne pour Karim Wade bokk moo tax ngeen dàq élection yi benn jaaduwu ci bu ki nekk tooñ askan wi la lay yi muy joxe moom waree saar benn jàllu ci mooy doomee raam kii ku a gis lu mel ni doomee xaraan yi na wax dëgg yàlla day metti dañuy woo di saaga dañuy woo naan di ngeen dee seeni doom danañ dee di ngeen am ràmm da ngeen cardiaque da ngeen lu ne lañ ñuy wax c'est pas ça c'est pas ça ñun li ñu xeex ak li ñu daj ak li ñu dégg ñun ak li ñu doon xaar ku ko xamoon da nga ñu naan jërë ngeen ak jëf jaaraama ak jaraw lakk. da ngay seetlu foog naa objectif ñun bi ñu doon visé atteindre nañ ko. mooy ban. mars au plus tard Karim Wade dana dana dana am légalité euh, renonciation à sa nationalité française. mars la Karim Wade di am possibilité légalement ci yoon pour mën a nekk candidat moo ko wax de. Woré Sarr moo ne mois de mars ñoo ngi ci février mars mois prochain la Karim Wade di doog mën a nekk Sénégalais effectivement cent pour cent pour mën a nekk candidat. waaw kon ba Karim Wade di dugal dossier am na sénégalais la loolu kon ay fen la wala saara ko wax kon ba tey jii Karim mënut a nekk candidat même bu fekkante ne nationalité bi bàyyi na ko à partir du 16 décembre bi passé il faut que Karim toog ba mois de mars 6 mois yi d' après pour que mu mën a déposer candidature am ci élection yu ñu am Sénégal soog a mën a lay na Sénégalais képp la fii ba mois de mars Karim mënu ko. lu tax mu defoon ko kon lu jiitu loolu kon kay la mu defoon du jaaduwul ay fen la fen yooyu moo tax ñu seppi ko ngeen ne fen na jàpp nañ ko waaye dañuy xëpp ci cere ji suuf nañ xëpp dee nañu jaxase askan yu ànd ak Macky mi nga xam ne moom it bëggul élection ñu ànd ak moom complot teg suñu dil u suñu lay ku génn ñu tëj ku génn ñu rey askan bu ñu xeexee ñetti fan noppalu parce que ay lappata lan du ñu xeex xeex bu yàgg boo defee ñun ñu am li ñu bëgg mois de mars Karim Wade soog a mën a ñëw nag nekk légalement candidat comme Karim mois de mars lay soog a mën a nekk candidat mois de mars mooy mois prochain ñëwagul kon Karim li ñu fi wax yëpp lu jiitu mois de mars ay fen la kon kay conseil constitutionnel moo yar seppi ko waaye bu ko conseil constitutionnel seppee ci yoon ngeen na yéen da ngeen di xeex loolu ba tax ngeen voté ay loi yu baax naan da ngeen di pousse ay ba nit di ci dee wax ko ma gis lu mel ni mbokk yi yéen li may wax man dégg ngeen ko wala déggu ko dama gis ngeen ne nemb li may wax man dafa mel ne sama bopp dong laay waxal wala déggu leen est-ce que yéen a ngi dégg wax yi Woré Sarr ji. loolu lañ doon xeex xanaa nag bu yi jotee ba issue ba bu jot dat bi ñu tànn bu jotee waaw Karim bu ñëwee andi nationalité am Karim ñëw indi caution am ñëw indi parrainage am waaye dama ne xanaa kenn ko ne doo bokk nag ci élection yi bu boobaa nag ñu xam ne dañoo bëggul mu bokk ñu xam ne loolu lañ ñu ñu bako nag que man ak ñëpp ak yéen ñëpp bi ñu njëkkee génn list bi ne Karim Wade bokk na ci vingt et yi vingt et un candidat yi ñëpp a kontaan wóor na yàlla ñun dañoo xalaatoon ne rek na préparé nag ñëw ñu daal di ànd wër réew mi lii la ñëpp defoon seen bopp billaahi wallahi taalaay barke kasu rajab gi fi ma tëdd bi ñu waxee ne recalé nañ ko vingt la Karim Wade génn na ci damaa wopp sama lal bii damaa wopp fi lañ ma fekk di ma jox garab ak di ma jox ay biteel parce que sëñ Fallou parce que damaa mbett sama yaakaar dafa tas te leer na ma ni sama yaakaar tase ci loolu ñeen ñëpp seen yaakaar tase na ci ñëpp la seen yaram ge yaram ge lii mooy objectif bi ñu doon visé yàlla may na nu gain de cause ma bëgg nu delloo si suñu xel jaam ak pexeem yàlla ak dogalam. jaam ak pexem yàlla ak dogalam te fa yàllay defare doomu adama dafa yegg ba di ko yàq ma tekki ni kuy gëm kuy wóolu bul gëm doomu adama gëmal yàlla parce que affaire bi tournure bi mu am kenn xalaatul ne dina am man de billahi wallahi taala bi ne Karim Wade bokkul gi recalé nañ ko ci vingt et un yi li ma yëg yàlla ma koy yomal xëy am te leer na ma ne li ma yëg yéen ñëpp yëg ngeen ko ndax ñun ñëpp suñu at demoo doon pare dem campagne a nationalité lañ ne amu ko waaw ki nga xam ne am na double nationalité ba jàpp ko nag loolu rek waroon naa tax ñu dàq élection ku bokk ci candidat yi typiquement sénégalaise ngam nationalité ak bu Sénégal bañ def la ngay candidat val valider sa candidature xanaa loolu rek waroon naa xam ne tooñ passé wul loolu ki France ne bokkatul ak yow mi bokk ñu di moo jaay tukki nga ci wax dëgg yàlla loolu waroon naa tax PDS gépp encouragé nu PDS yëpp encouragé ko parce que yàlla nu suturaal liñ doon wax bu ñu ko jëfe koon ñu ñibbisi de mbaa ñu bari dinañ ci gaañu te teew dañ koo risqué ñun ñëpp dañ ñoo menacé seen kër nañ ko wër bu buñ demee taal leen seen kër man assemblée nationale kenn jëkkuma fa ndax bañoon ñu baare ba donc dama ñaan ñëpp ngeen delloo si seen xel delloo si leen seen xel li ñu def parti bi lañ ko defal gis nga de xeex bi ñu war a xeex moo des jóg bi Sénégal war a jóg juguñu de gis nga ñoom ñu ngi dem neen dañ leen a menacé dégg nañ lu ne waaye terewu koo jóg jigéen la dugg ci otoom faalewul menaces yi parce que xam na ne ñun dañuy wax di sànni rek defuñu dara loolu tamit jàngat bu rëy la toog di déglu live commenté di wax waaye Woré Sarr mi su mënee jóg takk ndiggam ci jigéen menaces yi ñu ko menacé yépp mu dem xuus dem ci assemblée bi na ràjj def li muy def ñu taxaw fii dara fekku ko ci loolu gàcce la ci ñun ñun ñu nekk fi di wax moo tax doo am sax sawata def ay live dangay bëgg dagg live bi dem toog nekk ci sa bopp parce que lii bu mënee am ci réew mi ba nit ñi di ci dee suñu ñàkk fayda la ñun ñii toog fii ci live bi di wax ak déglu ñun sénégalais ñoo ñàkk fayda ba Karim Wade ak Macky Sall yëpp ñoo ko Ablaye Wade di complot ñuy dugg ji buuxante dem ci ca ba di voté loi yu leen neex te dara fekku leen ci ak menaces yi ñu menacé yëpp gàccale kenn ku ne war ngaa sa bopp lii lii ñoom ñu sañ koo def te dara fekku leen ci heure bi war na fekk seen famille yëpp dee ñuy gas di suul kër yi tàkk ñuy yuuxu ñu toog na nemm toog fii di taal live di wax ku nekk di wax war nañoo xoolaat suñu bopp ñuy de war nañoo xoolaat suñu bopp lii dëgg du yoon nañ jóg génn na Sénégal gépp jóg. li ñu def maintenir parti bi ci position lañ ko defee li ñu def bañ suñu parti tasaaroo te benn parti mënu. li muy wax yëpp waxi parti politique lay wax da ngay seet li ana sénégalais yi ñaan crise institutionnelle assemblée bi dafa xuloo conseil constitutionnel dara ay tappale la ay fen la lii xew dëgg dëgg. affaire parti politique la ak candidat da ngay dégg Woré Sarr suñu parti suñu parti suñu candidat suñu parti suñu candidat suñu parti suñu candidat Macky Sall suma parti suma candidat suma parti sama problème yi ñu am yëpp problème parti politique la ak candidat la ñu am ñu daal di koy soppi def ko problème mu institution daal di koy soppi def ko problème mu état ci ay fen ndax lan ñun Sénégalais yi nanguwuñoo xeex nanguwuñoo jóg benn lacrymogène mooy tàkk ñëpp daw kenn ay dee ñëpp dugg suuf ron la li moo tax ñu ñuy def lu ne moo tax ñu yàpp ñu. lu ñu ci réew moom lañ ko defee. li ñu def dañ koo def pour suñu candidat mën a bokk ci élection yii di ñëw dañ koo def pour suñu candidat balaa élection yii di ñëw six mois yi ne moom mara moom la war a am légalité euh, renonciation à sa nationalité dana ci yegg au mois de mars li ñu def loolu rek lañ ko defee defewuñ ko leneen maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen balu àq maa ngi jéggalu mais bi dafa metti te lu nekk lañ ñuy wax man sama ajo yi lu ne lekk lañ may wax te loolu lu ñu may wax la ñuy wax képp ku bokk ci ñun waaw nit nag foog naa bu liggéeyee ba pare te nga seet xam ne kii li mu liggéey tegu na ci yoon jaaraama rek ci war a topp maa ngi jéggalu ñëpp di balu ñëpp ak di bal ñëpp ak may ñaan ñëpp nañ delloo seen xel te ñaan yàlla yàlla mi nga xam ne mooy may may nu nu fekkee te tal ba nu jàppale Karim wàdd ba yàlla jox ko réew mi ci date biñ ko bëgg. da ngay seetli suñu parti suñu candidat. Karim Wade li xew yëpp li xew yëpp suñu parti suñu candidat Karim Wade gis nga fi mu daal lay wax ci maanaam ku fi dee yaa ñàkk toppatoo wuñu kuy dund kuy dee li ñu bëgg nañ ko am mooy Karim Wade yàlla na ko yàlla jàppale Karim Wade Sénégal ngo Sénégal ngi Sénégal gi ngeen nekk yéen sénégalais yéen sénégalais yi seen sénégalais ngi nii problème baa ngi nii léegi lii lan ngeen ci wax lu ki seen pexe lañ ngeen ci jëf lan lañ ci war a taxaw Karim Wade xarit ma nga ca Doha Qatar di lekk lu ko neex di tëdd fu ko neex dara suñu doom yi dee ci réew mi te Karim Wade moo leen rey ak ay nitam ay làppato yu topp ci ginnaawam complot gu Macky Sall ñuy dee ñu toog fi naan dimanche laak altine di joxe rendez-vous ay balaa sama xol bee jeex ñuy tëb ay bis naan mardi ki ñi naan samedi ki dimanche xeex bi nekk chaque jour damaa wax sonn mais dinaa bàyyi laay fi bàyyi lépp arrêté je vais arrêter parce que mënumaa xeex ñoo xam ne du ñu ay nit xeex tey noppalu ñetti fan xeex benn fan noppalu ñetti fan wax naa ba sonn jëf naa lu ne sës naa mënatuma damay arrêté salaamaaleykum